jàppale woon te yéen ci biir kër gi xam ngeen ne shawarma fi mu nekk ni benn ma waxati mun nga koo toog bu nekkee ne yàppa la tamit sax dégg ngeen ko li nga jëre mooy boo jëlee yàppa ba pare cop ko ba pare dogat ko dogat ci nga xam ne moom nga bëgg da ngaa jël am li ne mooy ko ba mu ko bi nga xam ne moom ngaa steam yàppa bi ba mu ñor ba mu ne ne na soo paree nag si nga koo bàyyi noonu daal di ko jël di ko béres di ko béres ba nga xam ne am nga kola bi nga xam ne moom nga bëgg soo paree def si sa vegetable si nga xam ne moom nga ci bëgg a di am sa salade def ci bread bi jël sa mayonnaise mix ko loolu xam nga ne cocktail mayonnaise boobu dina neex lool bu a ñoo nekkee ci biir kër gi su ko defee ñu gën a mun a jàppalante waaye yéen ñi nga xam ne yéen seetaan dama leen ne képp xam ne bëgg naa bokk ci programme bi ekati rek sa téléphone nga call ci 4373905 mu nga daal di call ci ma daal di jël kooku noonu si line bi nuyu ko naan ko hello asalaamaaleykum dafa mel ni kooku dem na waaye fi nekk ni soo leen bàyyee si seen screen yi di ngeen gis léegi tey ñu dool di leen tayale bindal téléphone numéro yi nga xam ne ni moom ngeen di mun a koolee pour mun a jokkoo ñun waaye fi mu nekk ni gis ngeen li nga xam ne moom la Ami Jallow doon def mooy bi nga xamee ne dal dina jël li nga xam ne ni mooy diwlinam bi dal di ci def lii nag dal di jël li nga xam ne ni mooy saw am chicken breast bi gis ngeen lii kaani li fi nii nii la mooy red pepper bi ak yellow one bi yii nag dafa am solo lool ci am um, soo ko yëy dafa nekk loo xam ne vegetables yu neex ngaa gis ne gis nga bi nag kaane bu safa saf bi la guwaana baa nekk nii bii dafa saf saf saf ma daal di jël kook noonu ci laan bi nuyu ko naan ko hello asalaamualeykum hello waaye na ba xam naa tey téléphone yi sant faal waaye na ba tey rek xam naa ne suñ technicien si suñ mënee bind téléphone si si si screen bi numbers yi da nga gis ne ñi nga xam ne bëgg nañoo call dinañ mën a call bokka ñun ci programme bi xam ngeen ne callers yi gis ñi am ci table bi am si am fourno bi lu am solo ngoo ngeen gis ne kii mu ngi jël li nga xam ne ni mooy bakkoom moo tax ne bakku am na solo lool pour ñu ne neen ñuy toogee li nga xam ne ni mooy bakku ndax bakku képp koo xam ne yaa ngi koo toogee liñ ci noma yëpp da ko cee am te gis nga ne doo ci am benn coono coono loolu yëpp mu am solo lool lool gis ngeen ne li nga xam ne ni fi mu nekk nii am ah, mooy shawarma bread bi moom ngeen gis nii fi mu nekk nii ñu dal di jël nag li nga xam ne nii ah, mooy ah, ketchup bi moom ngeen di gis nii just a little bit of ketchup ba pare nga jël sa mayonnaise bi nga def ci suñ paree nag moom ngeen di gis ni ñu jël a little bit of um, salad salade bi tamit moom ngeen di gis ni ñu dal di ko ci def gis nga lii moom um, any vegetable soo am rek mun nga koo def ci li nga xam ne nii um, mooy shawarma bi ndax dafa tax li nga lekk mu gën a appetizing te dafa gën a nee gis ngeen fi mu nekk nii ñu ngi jël li nga xam ne nii mooy mixture bi nga xam ne nii mooy shawarma bi moom la ñoo jël ni fi mu nekk nii di ko ci def gis ngeen ko moom la ñoo raab nii gis nga raab biñ ko raab nii am na solo lool ba nga xam ne fi mu nekk nii da ngaa raab one two ba pare soog a def another tone pour ci corners yi den raabaat ba pare nag dal di loolu yëpp ñu ngi laa wane ne lii oyof na loo pour nekka te it soo li nga xam ne mooy shawarma paper bi mun nga ko wara muy white bi oo nga jël li nga xam ni mooy foil paper bi gis ngeen ne fi mu nekk poli sax man dañ ma jaaxal na poli fi mu nekk dañ mën a tooga na gis ngeen ne léegi poli daal loo leen gisee poli daal ñu ngi dal di def ba mbaax poli yi nga xam ne xamuñ woon shawarma ñu ngi def léegi shawarma futti rek lañ xamoon waaye na ba tey di leen jàppale bu baax a baax a baax yéen ñi nga ne yéen a ñu seetaan ngeen gis li nga xam ne tey moom la Amie Jallow tooga mu tooga tooga bu am solo gis laa jël nii def ko ci fi mu nekk nii dal di jël salade bi salade bi ngeen gis ni fi mu nekk nii moo di ko ci def gis ngeen ko su paree nag dal di jël li nga xam ne ni ah, mooy chicken breast bi nga xam ne moom la defar with the vegetables yi nga xam ne ñoo ci nekk su ko defee nag dal di jël pour raab liñ doon wax shawarma shawarma man gëm naa ne fi mu góor ñi sax boo leen joxee shawarma mun nañ koo defar li ci am solo rek mooy ne ñu ne neen ñu jàppalante mun a xam naka la ñoo mun a toogee lii ci biir waañ bi waaye ba tey rek képp koo xam ne bëgg naa bokk ci programme bi rek ekati sa téléphone nga call ci 36 555 61 kóolpa koo xam ne bëggoon naa tooga su ko defee mën naa la fekk si bi sa biir kër bokkaay bi gis ne lii dafa am solo tey dafa xam ne ni tey li nga xam ne moom la Ami Jaara tooga dëgg dëgg mu nekk lu am solo gis bi nga xam ni dañ ko dee use ak foil paper pour jàngal la jeeg ñi ñi nga xam ne ni xëy doo bëgg a am ñam bi tàng am sedda sedda lool moo tax soo defee am foil paper bi di nga gis ne mun nga am sa grillage nga teg ko fa muy tàng nanka nanka soo mënutee loolu sa soo amee sa oven boo xam ne ni tàng na mu nga nga dugal dugal ko ci microwave yëpp rek pour bugg a am soo buggee ñam bi xala tànga bi nga xam ne moom nga bugg a yëpp rek pour ñu jàppale wante la ba tax na gis ngeen tey li nga xam ne ni ah, moom la Ami Jaara togga mu nekkal am sawo sawarma nag moom xam naa ne mu nekk ni kuy pokk xam ne rek yaa ngi seetaan jaratu ngay dem jëndi sawarma ci biti ndax nañ leen li nga xam ne ni mooy sawarma mu nekk tooga boo xam ne ñun ñëpp mun nañ see jàngee lu baree baree bari tooga bu am solo tey nekk na loo xam ne dina oyof pour suñ ko waree ah, lekka ba tey rek képp koo xam ne bëgg naa bokk ci programme bi da ngaa téléphone nga ko ci 43739 waaye mu da nga ko rek ci ko fii nag moom loolu am solo la yëpp rek ñu ngi jàmmalante ci ñi nga xam ko defee ñu wax leen li nga xam ne tey moom lañ am ndax xam ngeen ne suñ ne shawarma loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo la ndax shawarma ku nekk xam na ne ko dee bugga waaye tamit pour togga ko mooy li nga xam ne ni mooy indi jafe dinañ gis ne yéen ñi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan yëpp muy góor muy jigéen gis naa mun na cee gis boppam te it ku nekk dina ci mun a toogal li nga xam ne ni mooy a am a am solo rek mooy ne boo sa chicken si nga di ñëw jël bi dal di jël nag ko dogat dogat dogat dogat dogat dogat boobu ngaa dogat dogat soo paree rek li ngaa def li nga xam ne ni mooy sa poobar dal di jël laaj eh, dal di jël sa kaani mix ko ni nga ko gën a mixé ba mu waaye nag ngeen du am vinaigre tey du am mustard soo leen déggee ñu ne du am vinaigre du am mustard xam ngeen ne loolu boo ko ci defee daf ko dee gën a tooyal te li warut a tooy da dafa war a nekk loo xam ne ni dafa war a dry waaye tamit yëpp pour fàttali leen na boromam ni nga ko waxee noonu tam ma ne xaaral waxee leen ko noonu ndegem du am mustard te du am vinaigre because yooyu noonu dafa tooyal ni nga xam ne ni mooy tooga bi te it warut a tooy dafa war a nekk loo xam ne ni dafa dry moo tax warut a am mustard te warut a am vinaigre li mo am rek mooy ne nga def sa poobar dal di jël sa laaj nga def si dal di def sa seasoning si na gën a saf su safee rek di nga gis ne boo paree rek da ngaa jël di jël def ko ci diwlin bi soo ko defee ci diwlin bi tamit jarul nga di ko dëppa ni nga ko jëlee am sa bakku bi rek di ko yëngal nanka nanka rek di moo yaa ngi ko yëngal rek di nga gis ne dina dem bi dryal boppam su demee ba nga xam ne a dal ay sa veggies yeeg yooyu noonu nga dal di ko teg ci koom waaye yooyu noonu doo ko bàyyi ba nga xam ne dafa tànga jër jër jër jër jër déedéet da nga koo bàyyi ne xay xayal ko ni rek mu xal koo dugga rek su ko defee rek nga am génne ko ci li nga xam ne ni mooy furno bi dal dina jublu nag ci li nga xam ne nii mooy tooga bi tooga bi nag fekk lii pare na gis ngeen lii kaane bu dija la fee def ni pour ferej ko ci mu jox ko benn façon yi tooga ndax loolu dafa am solo lool moo tax mu jël li nga xam ne ni mooy kaane bu dija bi moom la cee def nii léegi nag gis ngeen ko mu ngi jël li nga xam ne nii mooy kaaneem yeeg sal lifin ni ñoo yeeg yooyu noonu moom ngeen gis ne mu di ko ci def yii nag mu di ko